yi wax ma ne leen gis na Sénégal deux ans laa leen wax ma téye nii sama loxo parce que danga ko maîtriser. yow da nga xam Sénégalais la. du képp wax bu dëkk si dëkk ba am si juróom xam ma vingt neuf ans yow nga am problème pour xam waa dëkk bi loolu bu yeboo nga xolaat sa bopp. maanaam dafa intelligence bi dëkk.

fol si jet wala dox si géej yokk job di denc yaa ngi may dégg nee nañ waxuma dara nag. cee prof ñeex cere. góor gi cee góor gi cee cap euh, vol jet dox ci géej. maanaam si vol si jet rek wala wala dox si kaw ndox. Mm-hmm. waaw force. waxo dara waxuma dara waxo dara comme rof ci ciep cere dolli ñeex ciap ni goor gi jeen vol ci jet wala dox ci geej yok job di denc yu bon di heet bom ni clair ci sa xol bu waw ni xeer même boy dee bul foog ni jeex na may bës bi la god di yee waxuma fa dara manam da ngay won deep mo nek ni non non de attends dañu leral ndax wax na dara wala waxuma dara wa wax nga dara mais li nga wax lay comprendre

investir ci fen. te amo sax bénéfice du doute. des fois mhm. bénéfice fen doute déjà. punchline bi nag na fen ñaari parti yooyu taxaw nañ léegi investir ci fen amo sax bénéfice du doute mooy nga jël sa doole bi def ko ci fen te nit yi duñ sax tok di dute naan lu muy wax dëgg loolu du dëgg tellement que da nga mu fen waxuma dara. loolu nah, kan moo koy def su fekkee man non dama lay laaj ndax wax naa wala waxuma parce que loolu tam xam naa ne wax nga dara non wax nga dara non wax nga mais kan moo def loolu kan moo investir ci fen te amul sax bénéfice du doute c'est pas kenn moo ko war a wax mais bëri en plus rap la rek da ngay def ay affaire ay figure yu rafet après nga avancé mais eh? am ñu koy def bëri na ñu koy def te investir nañ mais amuñu ci loolu tamit parce que fu ñu waxee dañ naan kii de nan la nit di investir ci fen investir ci fen maanaam da ngay da ngay fen pour yàqal nit wala fen pour nit yi xoolee nit ki benn kanam bi wala fen pour euh, discréditer nit ki mhm. léegi après léegi bu fekkee da ngay def loolu noonu investir nga si léegi amoo si dara investir nga si temps sa temps sa doole sa lépp sa imagination parce que fen moom yenn saa da nga koy nga sos léegi nag bu fekkee def nga loolu ba pare amoo si dara mooy waaw amoo sa bénéfice du doute. moo la gëmuñu la xalaatuñu la parce que yow da nga tàmm fen duñu la gëmati. là tu parles waaw ñëpp. ñëpp maay sama jeet maay. naa ay bëri naa ay ay ay ay du rappeur kese man je suis pas tout je suis pas là wala euh, samay rival du ñu ay rappeur kese. bien vrai que nag nekkuma fi di wut ay ay nit yu may yu may nekkal en concurrence wala di di xeex ak ñoom non non non di may di may ut mooy ni may def avancé mais si yoon bi dafa bëri ku lay jéem a kale wala koo xamante ne ngeen nekk ci benn affaire stratégie et cetera ci domaine yëpp nag. soo ci musique da am ay nit yoo xam da liggéey di sekk yu bëri comme Pape Sidy sekk na ñaar yoon lañ def émission yenn saa ñu sekk ay affaire yenn saa nga woo ma conseiller ma yenn saa ma gis benn affaire wax la.

yow da leen di yow doo bàyyi mu seet. dama leen di soit dama leen di dama leen di wan ni que maay avancé dama leen wan ni que nekkuma di nelaw dama leen wan ni tamit tamit yi nax seen bopp rek. parce que ce succès dina am ñu mu neex. waaye dina am ñoo xam ne daf leen di changer. bëri na am ba yi. nga Ben, c'est en avant, tu as utilisé quelques figures de style pour parler de tout ce que tu venais de dire mais donc répéter ko sur d'autres formes c'est-à-dire ni arto artoo nit ñi ni nga leen di waxee seen ci tassel chemise bi carrière bi comme c'est chemise ou pas donc tu as utilisé les choses les plus sacrées chez une personne pour lui dire qu'il y a aussi level boobu nga mais en même temps j'ai constaté que tu as parlé de xaalis no money

maanaam la yi fay wala. waa na mën a bi teew parce que wax dëgg yàlla gars yi dañu yàgg étiqueté ay ay comme ay xale quoi dañu yàgg jàppee comme ay booy. Hmm. par exemple ñu nekk si net bi ku nekk saaga moromam ku nekk def son xam nga gars yi di coow coow du gauche à droite non avancé loowul kenn man xam la mooy la moom avancé loo lii xaalis. xaalis bi dafa war a ñëw waaw moo tax ma nee xaalis mooy gagné guerre bi du ma reyante comme militaire. Mhm. mooy gagné guerre parce que xaalis moo ko fi teg. parce que da nga wax ne pour concurrencer ak Dip il faut nga yor mani. bien sûr. parce que yow da yor mani. mais dama koy prouver seen euh, seen yi di dugal sa ay son di si snap si story privé yow da nga koy bàkkoo. non c'est vrai que damay bàkkoo loolu. da nga koy bàkkoo wax nga ay kii la rab la rek. rab la mais da koy bàkkoo. ngay bañ diib di ko xeet eh, sa gel di ko def snap ngay gis affaire yooyu du neex gars yi. waaw loolu mais bu yemoon si ay gel garaawul. mais da ngay dem sa gàlle maire bi bu dul père bi paa bi. maire bi duñ la déglu wala sa rakk wala sa mag wala loolu mënul ñàkk wala. paa yi duñ moom maa fa moom loolu moom. loolu moom leer na ko waral loolu ma si waat pour lan. waa number foog yi ngay foog nii bit bi du fon ci quoi Sadik moo ko joob. Sadik moo joob lii. percu yu ay lu ngeen tëgg la vrai. moom moo ko def. moom moo ko tëgg. waaw. très bien en tout cas c'est génnul quoi mu ngi yaa ngi si yaa ngi dawal yaa ngi raab.

ndax dee du jéem waaw may dee day ñëw rek nga dee waaw man may def baña xaar parce que dee du jéem uh-huh. soxla nga tout pour def ko benn bu mun na takk plus de 5 jeeg benn buum mun na takk plus de 5 jeeg ça ça veut dire soxla tout pour def ko benn bu mun na takk plus de 5 jeeg waaw ça soxla woo tout pour am ay soxna yu bëri yow kon si ñëw monogame si mais soxla nga tout pour am 5 jeeg